conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoor réewum Guinée bu tàkkee du bett kenn ci réew mi ndax lépp loo xam ne mooy waral am réew tàkk jamono ji ma nga sa Guinée yéenekaay gi di réew mi ko di jee ñu fekk fa Cellou Dalein Diallo nee na am na 53 pour cent te nag askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Guinée am na loo xam ne ñoom ñoo ko war a bañal seen bopp dañoo war a taxaw jàmmarloo ak Alpha Condé ndax askan wi bu ñu jëlee seenub dogal kenn wuru koo fuqarte yéen kaay gi di enquête nee na li am ba mooy fitna ji ma ngay gën di yéeg fi nga xam ne mooy Guinée maanaam tension bi ma ngay yéeg ambassadeur bu Guinée bi nekk ci Sénégal démb dañu ko rawale ndax Guinéen yi nga xam ne ñooy yeewoo Sénégal démb dañoo wane seen bopp jàmmarloo ak takk der yi dañoo mer ba maara détail yi ndax ñoom nee na ñu Alpha Condé li mu nekke ñoom ñoo ko si bàyyi kaaw daal maanaam bu amee ca Guinée bu mu bett kenn ndax ndaw ñi jóg nañu taxaw yéen kaay gi nee na sagar ma ngay xeeñ ci Guinée Conakry giraawaleeg musiba ma ba kumba gu mën na faa am yéenekaay gi di Sud Quotidien nee na lu toll ci fukk ci ay nit ñàkk nañ seen bakkan ci jàmmarloo yi am ci Guinée am na si ñaari policier Cellou dalee Diallo fa mu nekkoon démb ba tey fala nekk maanaam nee na du daltu ginnaaw benn yoon Alpha Condé mi nga xam ne moom la ñuy tuumaal ne moo bëgg a sàcc élection yi démb woote na ak dal yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na guinéen yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal wane nañ seen bopp démb ak guinéen yi nga xam ne ñoo nekk Bruxelles dañoo mer ba maara day taali yéenekaay di critique nee na Guinée Conakry jamono ji mbooleem loo xam xamante ni rek war naa mën a taal am réew ma ngi Guinée Guinée su tàkkee du bett kenn ñi nga xam ne ñooy waa Amérique ñoom nag daat nañu dànkaafu takk der yi nga xam ne ñoo nekk Guinée ak ñi nga xam ne ñoo yor lépp loo xam ne jëm na ci wàllum élection yi yéen kaay gii di Vox Populi nee na gouvernement bu Guinée nee na juróom-ñeenti nit ñàkk nañ seen bakkan waaye nag Cellou Dalein Diallo moom fukk ak juróom benn la wax yéen kaay gii di Rewmi Quotidien Cellou Dalein Diallo daat nañ ñaawlu bu baax a baax taxawaayu CEDEAO Dakar Times moom nag nee na CEDEAO amatuñu benn crédibilité te sax ñoo bàyyi Alpha Condé jamono ji maanaam mu daal di encercler Cellou Dalein Diallo séquestré ko ba pare nag di waaj ay résultats yu boppam yéen kaay gii di direct news nee na Afrique jamono ji dafa yëngu ndax su passé Guinée Conakry gi nga xam ne nit ñaa nga rayante Côte d'Ivoire tamit foofee ñoo nga fay rayante Nigéria tamit ñoo nga fay rayante daan nay wax ne lu toll si juróom-ñaari nit rey nañu leen fi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire lu toll si ñaar fukk ci ay nit fi nga xam ne mooy Nigéria lu toll ci fukk nit fi nga xam ne mooy Guinée Conakry te jamono jooje nag ñi nga xam ne ñooy waaye Union ñoo ngi doon xaar ñuy wax si dañu ñi nga xam ne ñooy waa CEDEAO ñoom tim dañoo noppi ci mbir mi jamono ji nga xam ne yenn ci ay réew ñoo ngay rayante fii ci Sénégal tamit bëri na ci ay ndaw yoo xam ne ñoo ngi jël gaal gi di xaro yéen a kaay gii de la témoin nee na Barça wala Barsaq moo commencé waat ndax ndaw ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci réewum Sénégal ñoo dem xool ba mu yàgg xam ne amatuñu yaakaar ci ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi xam ne seen ëllëg bu dee ñi nga xam ne ñoo yore réew mi du saafarawu maanaam yaakaar ju tas ji nga xam ne moom la ndaw ñu nekkee loole moo tax ñuy jël gaal gi ndaw ñi nag fenn la ñu ko wékk maanaam dee ci géej gi wala yegg réew réussir yéen a kaay gi daan nay wax ne état bu Sénégal moo lajj ci politique bi nga xam ne jëm nañ ci wutal ndaw ñi am xëy yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy séeq waxtaan wu yaatu ak Mamadou Djiko mi nga xam ne mooy directeur général bu agence nationale de l'aménagement du territoire daan nay wax ci lu jëm ci horizon 2035 ak na projet beeg taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci fas yéenee amee daan nay wax ne li tax ñu taxawal ko ak li ñu si jublu état bu Sénégal xam nañ ne fii ak 2035 askanu Sénégal danañu yokk ba toll si ñaar fukk ak juróomi million te jëm ci wàllum dëkkuwaay lu jëm ci wàllum énergie lu jëm ci wàllum transport ba ca emploi loolee lépp lu jaral lijjanti lay doon ci biir loolu tamit ci yéenekaay gi wax na ci projet de développement yi nga xam ne état bu Sénégal am na ko ngir nag fexe ndaw ñi am liggéey yéenekaay gi de las ak réew mi quotidien ak les échos xëy di ñu xamal na ñu am na ak njublang gu am ci wàllum visa benn waay bu tudd Birane Lo moom tëj nañ ko lu toll si ñaari weeri kaso li ko waral nee na benn sëriñam bu tudd Sëriñ Fàllu Mbàkke moo na ko wutal ma ay nit ñu bëgg a dem mu wutal ko ay nit ñooñee kenn ku nekk nekk fay lu toll ci quatre millions cinq cent muy neuf millions neena na la sa pare nag jamono ji journal bi nee na teg nañu ko loxo ndax ñi nga xam ne ñoo ko jox xaalis ba ñoo ñee dañoo perte yéen gi de Libération vingt quatre heures l'Observateur daat nañu wax si ñaar fukk ak juróomi ñi nga xam ne dañoo njort ne ay góor jigéen lañu te ñu tegoon leen loxo jamono ji daat nañ leen di mandat dépôt nekk suba ci àjjuma ji la leen di atte stade yéen a kaay xëy ci Ligue des champions ak match yi nga xam ne am na niki démb Bayern Dominique démb moo tas Atlético Madrid ñeenti bal ci dara la ko Edouard Mendy jamono ji intronisé nañ ko maanaam daan nañu koy samp mu nekk premier gardien bu Chelsea loole Frank Lampard di entraîneur ba moo ko daal di le nee na am na xel mu dal ci Edouard Mendy yéen kaay gi di sunu làmb daan nay wax ci CNG ak règlement bi nga xam ne jëloon na ko dafa waxoon ne mbër yi ku ci am quarante cinq ans da ngay dem retraite léegi yóbbu nañ ko ba quarante huit ans. Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen doon may seen revue de